lu di wuyo def koy nduróol baax yaru laabir bari mandé ba nopi am yene lol ci domi adama yi ki moy serigne jaabi borom si jaada bi domi réew mi la dib doomi daara ca Casamance la ko yàlla sunu borom baxal ko mu géejal lol ci xam-xam amna xam-xamu lasrar da fay set di listakhar alim la hafiz la amna xam-xamu lasraar ilmu nujum a mbokk yi yin ñi am jaxlé ci ay aajo yu taw faju wërsegu taxaw lo duggu du soti buntu bo jublu mu tëju ngay toppatoo ay kayit mu jafe mbaa ngay def concours di jongante bëgg caa am ndam nga am jafe-jafe ci sa néegu sëy maanaam kër gu yëngu yow mi nga xamante ne seytaane def laa sonal wala book nga am ay jafe-jafe ci wàllu rab mbiri rab sonal la lool ba yàq say mbir ci sëriñ jaabi borom si daadi bi laa lay yebal moo ca gaaw macha allah dafa xarañ lool ci ku seytaane sonal mbaa ku rab jàpp borom kurus la ba noppi ñeme sijaada lool ba ñu dippee ko sëriñ jaabi borom sijaada bi jëlal numéro téléphone bi gaaw 77 357 65 65 wala nga woo ko ci 76 495 90 03 cey Serigne Jaabi borom si jaada bi maa ko wóolu daal kii la jaam ñi doyloo daw leen ca gaaw mu faj seen aajo borom résultat bi laa ko tuddee dee ngir ay ajo yu fañu rek kenn melul ni ci Serigne Jaabi borom si jaada waa jàngook dee su ko yemale mukk ak gaañi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 wuñu dara oh salaamaaleykum. naka bu yow foo nekkoon boobu ba léegi. embouteillage yu bari rek ak dëkk bu xat. boobu ba léegi nag maa la bloqué woon mais comme que xat yi daf may jaay rewane di ma jaay fuy ak beew moo tax ma woo kan mooy Khady. fàtte naa sax parce que yow xamoo Khady Kenza. mais yow attends je rêve ou quoi man ma takk sama jabar ci faratas yàlla ak sunas Muhammad mu tudd Kenza mu ñëw nga naan ma Khady. gis nga mariage boobu noonu politique la woon rek. xool nan lañ doon toogee Gàmbi pour stable mais nag tudd Kenza xaddi la tudd Dakar. s'il wax ma leneen yi ngay wax ay affaire détail la quoi. gis nga xadi ba jógee Gàmbi ba mu ñëw Dakar dafay am jëkkër. dafa am jëkkër non li lii ngay wax kenn saa sañu loolu da nga ma bëgg a wax ni Kenza ñaari jëkkër la am kenn Kenza dafa am jëkkër Gambie am jëkkër Dakar dégg na ma bu baax ani bébé Ismaïla Ismaïla Gambi xadi doomam bébé Mouhamed la tudd bébé Mouhamed. ok kon lii moo tax bi ma koy wax naan ko xew mi nañ ñëw defee ko Gambi mu naan ma déedéet nañ ko defee dakaar émet 3 millions dans tout ça. millions yi xadi dugal na ko ci comptam ok. kon xadi daf may jaay jikkoy bandi ak wuyu mais dina dina leer gis nga lol non yëpp nek motax tax ma woo la dama laa bëgg yobbu ba kërëm nga def fi une semaine huit jours fay def ci bi huit jours yoy non bul may xadi dara tek ko so fumu duggu ci gàll bi nga dugg ci gàll bi xel mi nag du ko wër te làmbañ bi dafa neex dina la gëmloo ni kër yaayam la nekk te nekkul kër yaayam mi ngi kër jëkkëram jëkkëram nag pour le moment nekku fi moo tax ma lay dugal ci gàll bi mais xadi bu ko may dara 18 hmm. heures dinaa la jël Kenza day bandi bandiloo mais dina xamante ni wéyu banday baayam. an sa valise. sama valise mi ngi ci fi ma dal laa ko bàyyi sama bagage fi ma nekk foofu laa ko bàyyi. mais bu mu la def problème bu mu la def effet 18 heures dinaa la jël si yóbbu la gàlle xadi ok. ok amul problème merci. nekk si jàmm.

ndax man xadi ma dul juutooti di togal ben xalé muy wan ak sen badjen bu ñak njëriñ bi bis ni ki munu ma nek ci kër gi yore dépenses ba paré di dang-dang di dem marché papa musa yow wëndang bi xam ni yee yaay jangato tek wo dara ak di andak ak say moromu 15 man di andak ak say moromu wuyu ak banti amulo mu ben njëriñ la woon fa woon commencé wat bis ni ki tay di commencé di ndugg ci na lèr amina kër gi nay set wicc boli waxale mu ay waxam ndax sa liggéey la yow duus na lèr amul ay damay jangi amul ay tante ni parce que bu ngeen yeen ñaan ñaar tekki lo leen ma man amul lo leen ma gattu ndëriñ te gis nga seen nekkin ci kër gi ngeen fekk ji won seen seen yaay ci alakhirah mo doon gën ci yeen ñaan ni papa Moussa li ma wax yépp est na ci sa biir bopp bi Moussa yow laay waxal noo Moussa eh dégg nga ma wala déggoo ma. tante yaa may gaañ. sama yoon nekkul ci loolu. waaw sant maa lay dégg. kon dégg nga ma. ay tante yaa ngi koy gaañ. yow eh merde yow wala danga nga bëgg ma ñamal la. tante yaa may gaañ. xaj. dama lay wax bu yeboo ngeen duggal ko seen bir bop bi Amina yow ta nga jug legui legui grand ménage kër gi ba mu set te eau de javel bi bu ko yak yeen ma len bañ oui Kokala. la. man la. yow kan. man la Moussa. Moussa yow de sama tonwaay hein, la. yaa tamit Moussa nga tudd. oui papa Moussa laa tudd. macha allah. koo soxla woon. Khady laa soxla woon. Khady sama tante. ah bon sa tante la. sama tante là, kay. ok moom la soxla woon. ah bon. Mm. bon yegg si na moom wàll Hemen onu. tante am na ku lay seet. kan moo may kaay bu dem kaay. yow lan la looy taxaw di seetaan. sa biir néeg way yow sa bëtu dëmm yi musa lo fi wut dama ñew si sama dom ak sama jabar yow sey bi samay mbokk wuñ ko lolo tax ma nekk fi Sénégal sey bi sey mbokk wuñ ko wala da nga am ñaari di laatal bi. man ma am ñaari jëkkër. et puis xale bi ngay saaga nii sa jëkkër ko jur. yow yaa mën na duul sama mag bu jigéen bu ma bokkal nday ak bay moo ko jur. ok. ah sama jëkkër moo ko jur man xadi ma am ñaari jëkkër. kon yow xadi nga tudd. xadi laa tudd waaw. sama yaay moo ma tuddee Kenza sama papa tuddee ma Khady et après léegi lu soyoon sa saag bi lu mu fi wut. dama ñëw pour dëkk si te huit jours laa fi am. <laughs> yaa ngi fi maa ngi fi di nga xam ndax man Khady am naa fi du am ñaari jëkkër. bu ma demee Gàmbi su ma defee un mois da ngay ñëw fekk si ma te chaque fin du mois damay ñëw. nga ni fii ngay toog. fii laay toog. Bisa sax man wax ju bari ji sama fan dal ci chambre d'ami bee ngay dem chambre la man niru kau dem chambre d'ami fi fanan, falai fanan, loi def ñun ñoo def defandoo loolu bu yaboo mu leer sa bopp bi jugal jëlama sa Tout cela revient après la pub. bax yaru labir barrière mandé ba nopi am yéne lol ci domi adama yi ki moy Serigne jabi borom si jada bi doomi réew mi la dib doomi daara ca Casamance soxé ko yàlla sunu borom baxal ko mu gédjel lol ci xam-xam amna xam xamul asrar da fay set di listaxaar alim la hafiz la amna xam xamul asrar ilmun nujum ah mbokk yi ñi am jaxlé ci ay aajo yu taw a faju wërsëg wu taxaw lo dugg du sotti buntu bo jublu mu tëju ngay topato ay kayit mu jafe liggéey mbaa ngay def concours di jongante bëgg caa am ndam nga am jafe-jafe ci sa néegu sëy maanaam kër gu yëngu yow mi nga xamante ne seytaane def laa sonal wala book nga am ay jafe-jafe ci wàllu rab mbiri rab sonal la lool ba yàq say mbir ci sëriñ jaabi borom sidaade bi laa lay yabal moo ca gaaw macha allah dafa xarañ lool ci ku seytaane sonal mbaa ku rab jàpp borom kurus la ba noppi ñeme sijaada lool ba ñu dippee ko sëriñ jaabi borom sijaada bi jëlal numéro téléphone bi gaaw woo ko ci 77 357 65 65 wala nga woo ko ci 76 495 90 03 ci Serigne Jaabi borom si jaada bi maa ko wóolu daal kii la jaam ñi doyloo daw leen ca gaaw mu faj seen aajo borom résultat bi laa ko tuddee de ngir ay aajo yu faju rek kenn melul ni ci Serigne Jaabi borom si jaada gi waa jàngook dee su ko yemale mukk ak gaañi mais Anta namoon naa la yow kay bu ne ma namoon naan yow bu ndekete fenkat bu mag la yow li may yow rek xaw ma ni nga mel yow nga may ne ma ñu wax ko sa papa ba mu ne ndekete yow yow di taxawaalu. mais yow Anta yow la mën a yow dañoo seeki li may wax ni offensé. yow da Anta ne man so déggee man la maa marok c'est parce que man mi sa fi ma doon jëm xomako ma ngi won Mauritanie gii te mënuma la wax sax li moom ma yóbbu Mauritanie. li mo la yob Mauritanie xam nga la yob Mauritanie kay yow naka ngay mëna a Mauritanie nan yaay mar mënu woon wax ni yaay Mauritanie gënul woon. Anta gis nga nit bo bëggé xam da ngay laajte ñu wax la yaay ngi comprendre Anta man li ma Mauritanie mënuma la wax li la. pourtant laaj na la. non laajoo. bi la laajee téléphone lan nga mo wax yaay Maroc. mante loolu laa la wax pour que je xelu famille puisse a mais accueillir mais pas que nga xam Je gis ñu la sama comme que gis nga ma kay santal la bienvenue moo gën nga may accueillir ok je suis désolé. Tu ku nekk may def pas d'accord problème d'accord Dieu naka école. ça va ça va ñooy si ñooy gérer. yaa ngi bàyyi daw jàng ah. ah bon maa ngi jàng mais waaye mu xam nga ña mu gën a xam. ñu respecté devoir yi à part devoir yi moom. waaw ah. noonu fa woon rek jàng par système. moo xam naa pour après nga jëm par code rek. waaw ah, incha allah mais comme que da nga waxoon daa am fooy jàppee. d'accord bàyyi ma dem. woon oh, na fi jóg ba xam na fi na fi na fi na fi na fi na fi jóg. xanaa xanaa da nga doon nelaw waaw naka kër muur nag kër muur tudd nga léegi nag ci jaam kër muur nam naa leen waaw waaw ah, kay dox na ko xaw naa fa gëj ko mhm, mhm. nëfi da ngaa kiiwut dara mhm, gambar wallahi saali dër kase saali dër kase laa yéen ñi saali dër kase yu lakk waaw daanaka daa ñor ca ndayam rek loolu bëtik waa lakk ko waaw lakk li gën a neex waaw mu ngi mel ne nen fi mu toll nii ansa bëy wa la fi ansa bëy wa ansa bëy wa xanaa war naa ma tus ma tus def kay waaw waaw ay naa ma tus def xool ko de xoolal ma ko de waaw waaw dama ko bu ko lii rek bul xool rek mu neex rek ngay nga top njaay mi martay yi duuma yi na fi xamna xamna xamna naa xam naa lay jóg xam la da ngay nekk keur mu rek jele di fataayo di di jël suma xaalis bi di ci ke mu jaay sa jur gi di di di noose waaw ah, du ma fër diggi saa ko la ci am duma feur duma feur ma fër diggi saa ko la ci am yaay mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> xale mi ngi nii de taxaw waaw koy jongo ba ba dee waaw waaw ca tollee ni melu naa yaay coupéel dama laa soxla tànn na fi dinaa la woowaat dinaa la woowaat waaw waaw waaw yaa xale yow yaay baatoo nga xam yaay xoolal du ma xool dara nan nga may fekk may waxub téléphone di wax si tànn na fi jóg xamoo lan laay wax ma koy laaj sama bëy waag ba xam mat na dara déet xale nga taxaw ne jadd ci sama kanam naan ma yaay coupéel yaay musaa ñëw na Moussa ñëw nag maa na a Musa ne Moussa na Moussa kay xam naa mu ci kër papa Musa kay xam naa ne ñëw na lan la. yaay waxuma la papa Musa. Musa bi nekk Gambie laa la wax. Musa, Musa Moussa Musa. Gambie Moussa. tam la daan yónnee xaalis bi toggee Ebeja. foofu la waa. ah sa xarit ba sa xarit ba sa xarit ba xarit ba. yaay kooku du sama xarit sama jëkkër la. sa kan sa kan? la nga ne. sama jëkkër la. nga ne sama dil baaxul moonte de am na dil boo xamante ne man ak yow ak yàlla la de keneen xamul. Ah. lu mu la xamal. Eh, kii xamal na loo xamal. Eh. ah xamalul na la waaw waxuma loolu béy si ndaw si lu mu def ba bàyyi ji ñuus ko. waa kër gi sama néeg laa dugg di seet sama benn yëre gis ci biir benn téléphone bu am puce. puisu Gàmbi la wax. lui puis. là lan lay doy lui puis. puis moi moi attends puis moi il def téléphone pour wuyu quand même. tu bibliothèque peut-être nga li ci armoire bi la ko mi ngi ci téléphone. cœur nga ne sa la ah. cœur ram bandi woon naa caga woon say yonna saayoon naa lëkk njuuroon naa defoon naa lu dañu ci tolle ca tollee ma am jëkkër sëy sa nak mu jël ma may xalé bu ndaw yaay sa waxu lan dul la la wax man bama ca tolle la la wax nangu fari nangu fari jamburi la dan def sa nanggo. fi job dama ko nangon ci ci papa soura ci papa soura la ko nangon muy bëgg ray bopam man lolu la dan def waye ñaari jëkkeur taw ñaari jëkkeur taw waa Xadi man sama l'enfance sama l'enfance man defee ma ko woon ni sama l'enfance defee ma ko woon ni man sama l'enfance man loqu njuur nangu fari jàmburi ana mbay te du xam nga dofoo ah tamit maa la gën a bandi aller gis nga lii boo ci teewul li ñu lijjanti ko ba mu ne kocc ne koroj ah. dama lay tëj ci kaso bi ba pare teg si ne kii yow yaa ma ko may sa càmmi doomam la te ba ma koy may majoru ma nga mayaat ma beneen jëkkër muy ñaari jëkkër kon xam nga mën naa laa porter plainte tëj la ci kaso bi dofoo nag yow xadi yow man ndax duma dem laaji mam Binta ma ca ma ca ma ca hôpital buur man man laaj ko ndax liir ba ma juroon yow la wala du yow ndax xadi ni ngembu nga de ngembu nga lool ram di def fi sa bu ne weng dikk taxaw di ma mélange yow lu dal ak bonne façon nit nga yow de yow yaay xaj yaay say say yow jikko ji nga def seni jaay babakar Fall ko xamone de Tamba di cagatu jóge fa dem Ndar di cagatu lii de seen yaay Babacar Fall. yaay yaay doomeeraam.